li nga wax ci RTS. parce que dañoo wax léegi bu CDA. ma wax ko ci RTS. RTS sénégalais yi ñoo ko moom xam ngeen ñi fi nekk yëpp média privé ngeen waaye ñu ngeen nekk nekk nekk média privé charte bi leen engagé bi leen jox yéen habilitation pour ngeen mën a exercer dafa ne. nii ak nii ak nii ngeen war a defee bokk na ci da ngeen war a tolloole Sénégalais yépp informé juste et vrai moo tax ngeen nekk fii donte am na ñoo xam ne ci yéen ñi moom seeni organe de presse peut-être nguur gi la ñu gën a jege peut-être que opposition la gën a jege waaye ñi ngi fii tey parce que information la waaye RTS anamu fi néew fi te li RTS di di

la, la pluralité dans l'accès aux médias publics notre principe de droit du ngeen gis Ousmane Sonko wala Malika, voilà wala Khalifa Sall à la RTS nous dul ñu campagne électorale jot na loolu est kon il faut nous dire, il faut que ñu ubbi RTS amener une émission publique plurielle C'est naa boobu yoon la chaque 15 jours une petite opposition comme une ñu fi pouvoir ñaare bi mooy CNRA nga xam ñoom it dañoo féete ñëpp xam nañu balaa ñu nga journaliste engagé politiquement ba ñenn sax nekk ci candidat amatuñu sañ-sañu dem taxaw ci seeni organe de presse wax ak Sénégal ko du candidat la candidat la pour nekk maire ba pare war a jiite RTS est-ce que kooku mën nañu tolloo la ñun ñëpp kon kooku dafa dañ ko war a démi démissionné dañ ko ko war a teggi foofu mu nekk noonu teg fa quelqu'un de neutre comme niñ ko réclamé ci euh, euh, Sénat nga xam ne ñi fa nekk ñoo fa nekk 2012 ba léegi te mosuñoo organiser élection na retraité nañu d'abord en tant que fonctionnaire waaye seen mandat jeex na depuis mai 2011 ngeen foog ne ñooñu dinañu def lu naqari Macky Sall kon loolu mooy poñ bu mujj bi ñu bëggoon wax ñu leen gërëm